am na lu ñuy wax mémorandum mooy kayit goo xam ne dañ ko tënkoon mébét yi ñu amoon ñu bind ko ci mémorandum boobu la ñu tënk problème yi nga xam ne jàpp nañ ne jafe-jafe yu nekk si barñi yu war a jokkale ak suñu kilifa pour que mën ñu taxaw ba mu ñu dégloo si tey dal wax na ne li muy njëkk namal bar ñi mooy def fi hôpital te ku nekk xam na ne tey jii bar ñi bu guddi jotee yaram yi sutante foog nga génn bar ñi pour faju ji bu ñu ko amee nag fii biir bar ñi foo xam ne loo génn bar ñi man nga faa faju loolu doy na sant yàlla te nag ndigal gu mu joxe la pour que lu mu gën a gaaw ñu lijjanti ko samp ko démarré ko def ko du lu ñuy jëm kanam déedéet lu ñuy def si la te nag nee na bu ngeen demee waa Bargny ngeen wax ne man Macky Sall maa wax ne dinaa leen defal hôpital bon kooku li muy wax du lu muy làmbatu du lu mu ragal waaye lu mu wóolu la di ko yeggee ñaareel ba danañu seen stade na la mel ñu nekk am nañu stade waaye tolluwul dayo bii dëkk yenn yi am mooy dama bëgg Bargny am stade bu tolloog dayo yi nga xam ne moom lay dëkk yenn yi am mooy mu am gazon mu am éclairage ba paré am sécurité parce que néna dañ ko mel ay statu ndaw way statu ndaw yoyu ëpp ndaka indi indi da fay fekk li nekk Bargny mu yokko ko ñongal ko ba mu tolloo statu ñepp am. ñaaral ba néna na bari nay jafé jafé ci digënté Sococim digënté centrale bi ñuy wax. bi nga xam ne d'ailleurs jël na engagement yeesal engagement ba nga xam ne premier ministre jëloon na ko fii ne centrale bi charbon bi moom 2023 bii day nekk souvenir mais dootul lu ñuy waxati centrale à charbon bi nekk si yi danañ ko wecci def ko centrale à gaz boo xam ne waa Bargny ñëpp danañ ci mën a jariñu te dootul nekk lu ñuy ragal lu ñuy tiit pour seen wér-gu-yaram dana fexé ba entreprise yi fi nek comme le port minéralier muy Sococim muy yenen yi fi wër neub bi liggéey Bargny ñu mën jappalé jàppale doomu Bargny seen RSE moy comme bi ñu am am na ñu ci dindi pour dimbalee askan wi ñu mën ko jotalé pour que waa Bargny mën a gën gis seen bopp ci tawa yu bërëbu liggéey yooyu xamné ñox ñom ñoo dëkk dina ci dolli également Bargny population bi yu ci bari ay ndaw lañu am na jumtuwaay yu fi nekk di ay financement di deer di xëyu ndaw yi ba pare boole ci jam ñaajo bi nga xam ne moo suñu wet dana joxe ay ndigal pour que chantier ya fay tijj ñu mën former suñuy doom parce que bu leen fàtte ne am dispositif bu fi am boo xam ne xale bi day def di formation ba pare dem di liggéey loolu dispositif bu nekk la ministère de la formation professionnelle dangay am bourse di liggéey ba pay di jàng dana fexe ba loolu ñu saxal ko fii si Bargny pour que doomu Bargny chantier yi tëgg si Diamniadio ñu man ko ñëpp ñu am préférence locale pour que ñu mën di liggéey si nga xam ne mooy chantier yooyu te du tere ñooñu danañ leen accompagner ci financement yi nga xam ne mooy am muy financement yi nekk DER yi nekk FONGIP ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñu ngi fi lii jëm nag si ñun mébét bi nga xam ne moom lañ ko gën a teg mooy géej gi nga xam ne mu ngi jël suñu kër wéyjur yi suñu kër maam yi ak suñu kër cosaan yi dale ko Minam ba jëw leen ku dem géej gis nga géej gi ni muy doxee ak ni muy lekke nee na dans le cadre si biir projet yi nga xam ne Sénégal am na ko si Fonds Vert ak Banque mondiale dana jël jumtuwaay pour 4 kilomètres de côte yi nga xam ne moom la bari ñu am ñu def fi liggéey boo xam ne géej gi nee nag moom si kàddoom nee na géej kenn mënu ko arrêté on n'arrête pas la mer avec ses bras ni mu waxee waaye géej mën nañu wàññi dangaram ba nga xam ne na muy doxee dana wàññeeku te jumtuwaay yooyu dana ko jël defal ko waa ñi pour géej gi ñu wàññi dangaram aw ni muy doxee mu wàññeeku comme ni mu ko defalee waa sali defale ko également digue bi nekk xam ne moo nekk Saint-Louis Rafael Luna, li nga pour la première fois maire wax en français ce nous y indi 250 millions ci commune de li ngeen di dafa dafa a parce que li que nga savez, am ci Walu sokosim la gën am ko donc dañu bëgg loolu ngeen di le président néna loolu la dafa bëgg a fexe ba weccet woowu mu nekk lu sakkan lu doon lu dugg ci keesu Bargny pour Bargny gën ci mën a dimbale boppam. wax na ne kontaan na lool ci doomu Bargny yi nga xam ne ñu ngi ci ay kuréelu administration di liggéey ak moom ak yeneen i kuréel yoo xam ne new ñu ci administration di liggéey ak ñoom rafetlu seen jikko ci na ñu nekk rafetlu seen taxawaay rafetlu dem seen xarañte te nag nee na seddu ci kuddu yu njëkkee. waa Bargny jox leen ma lu baax ma dolli leen li ngeen am kilifa nag kàddu rek la am bu ne defal ma ma defal la fexeel ba defal ko nañu fexe ba ñun waa Bargny ñu defal Macky Sall lu xolam sedd mu mën a dolli doomi Bargny yi nekk ci administration bi doole pour que ñoom ñu gën a mën a dimbali seeni mbokk te taxawaay boobu nag moo tax ñu woote nii ngeen xam ne ñun lañ doon doxi intérêt bari ñi moo tax ñu jóg jàppale suñu dëkk moo tax ñu jóg te loolu nag boo ko dégg ci sa kilifa sa xel dal nga am ci yaakaar war ngaa mën a ñëw ci say mbokk nga ne leen ñun de yéen ñu yebaloon dem nañu ci kilifa yi nga xam ne moo jiite réew mi mébét yii ngi bari ñi am mooy jafe-jafe géej gi avancé jafe-jafe usines yi fi nekk day indi problème mu environnement jafe-jafe jigéen ñi nga xam ne fa ñuy lakk ay jën bari nañuy jafe-jafe muy waa xelkom muy waa muy waa domaine ba ah waa xembe président nee na ñooñu dana seet ay jumtuwaay yu mu leen dimbalee ba nga xam ne bërëb ya ñuy liggéeye danañ ko mën a aar ba pare dimbal leen ci financement ñu mën a gën a taxawal seen liggéey ndax jigéen ñi boo leen dimbalee fii si bag ñi surtout yaa ngi dimbali góor ñi parce que jigéen ñi fii si bag ñi ñooy liggéey te ñooy yor kër yi le président xam na président xam ko moo Nena. financement yi dugg a maire Nena ko Amna 80 groupements yoo xam financé mais président Nena na loolu tuuti na nañ ko Yok ñu financement yi waa Jigé jigéen ñi gën a mën a gis seen a donc ñun li ngeen ñu yebaloon wax nañu ko tontu gii lañu président tontu ñu ne nañu ñëw jotale leen ko liñ ciy mujj nag mooy nit boo amee kilifa nga dem ci moom wax sa soxla mu waxante yow jàppante yow fexeel ba jàppante bi bañ dog nañu am ñun mottu ak fulli li mu yaakaar si ñun di ko xaar si ñun ñu mote ko toppaka la taxani toppaka la bojj gën a óor Macky Sall moo la bojj